أعوذ بالله بسم الله وصلى وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه ليان لا تي باتاخ ليغا خامني سيرن بي ماك بي داكو دان جيمالي تي مام تيرنو ابراهيم اعوذ بنا مسلم بالله تي يالا من الشيطان تي شيطان الرجيم كدي كونو جام yàlla yàlla nag ma musal ci seytaane mi yàqule ngërëbbu ko te mu waat ne ñëpp daañu mel man rekk ñàkk yërmaande yàlla yàlla musul ma ci seytaane moomu wa inni naka man uhi duha dana muslul ko moom saa doom ji bi ci yow yàlla wa durriyataha ak ay sëtam mina seytaane ci seytaane arrajimi kadi ko ñu jam soxna su baax su tudd xànnatu moo toll woon diggante ñi saroon nag bu amee doom muy góor mu yóbbu ko ca fa ñuy jaamoo yàlla mu bañ a dugg ci mbiri àdduna mu ko amee nag muy jigéen te jigéen yu su ko def loola mu ne nag saa boroom am naa doom muy jigéen de te laa nisaroon mooy muy góor mu yóbbu ko ca fa ñuy jaamoo yàlla mu bañ a dugg ci mbiri àdduna waaye nag bi mu dee jigéen itam tudd naa ko mariam mariam baadudi firi nee nañ jaamu kattu bi yàlla tekki ci lii nag ne mariam yi maa ngi ñaan saa borom nga musal ko ci saytaane képp ku sëtoo ci moom it nga musal ko ci saytaane mariam moomu nag moom la yàlla barkeel ba mu doon ndey yonante yàlla xiisaa عليه السلام ربي يا سما بروم احمد انا مسلم بك من همزات الشياطين تي جح جحي شيطانيه واحمد تمي مسلم بك ربي يا سما بروم ان يحضروني جتول مي ساي ربي احمد بك من همزات الشياطين مم يالا تي بوب مون يونتي بي وخال نيل سا بروم يالا مو مسلتي jaxi-jaxi iblis ak i gaayam musal it ci ñuy fekke samay mbir ndax fekk gi mbiri moom day tax seeni yàq rekk gën bari gën am doole yett yooyu ahmadu billahi ji ak wa inni uhi duha ji ak rabbi ahmadu bi ga suñ bi koy tàmbalee ay mbindam yu baree bari niñ koy gisee ci mbindam yi bismillah ci tuddu turu yàlla lay tàmbalee samay wax arrahmani yàlla ki aji xéewli xéewli di ji arrahimi yàlla ki aji xéewli xéewli sey maa ngi tàmbalee turu yàlla mi nga xam ne mooy ki yaatu yërmande bu dee ci àdduna yërmandeem mu matale ko ñépp ba ñuy kay bu ci mu jagleel yërmandeem ña gëmoon rek innahu naka moom min abdillahi mi ngi bàyyikoo ci jaamu bi yàlla taxaala kawe na yàlla wa xadiimi abdillahi tey liggéeykatu jaamu bi yàlla ba ba tey taxaala kawe yàlla sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa barak ila ixwaanihi jëm ci ay mbokum yu góor wa akhawatihi ak ay mbokum yu jigen fi diini ci diine wa fi tayni ak ci ban ban moy suuf ci yàlla sàkke adama moy ci cosaan rek xumooman ci ak matale wa khususan ak ci ak jaglel amma baadu dal gannaaw jiital nonu le fa jàmmi yàlla aleykum yàlla na doole nekk ci yéen tumma baada salaami topp gannaaw sama nuyu aleykum ci yéen indi naka man amurukum maa ngi leen di digal bi taqwallahi ci ragal yàlla taala kawe na al awimi yàlla ki aji màgg fa innahu naka yàlla taala akramu moo gën a tedd min kulli karimin ci jëpp aji tedd wa amurukum dama leen di digal biqtifaa imaa ci xeñtu la nga xam ne ataa dikki na bisi ca moom min hu bàyyi ci yàlla taxaala al mustafa kañu tànn alayhi yàlla na doole nekk ci moom salaatun dolli teral wa salaamun ak dolli wóolu wa barakatun ak barke tustafa yi def na leen tànn wa amurukum te maa ngi leen di digal bi taallumi ci xamlu wa bi taalimi ak ci xamle mooy jàngale yoo ci laahi ngir jëm yàlla taala الكريم يالا مي اجي تاد العليم يالا مي اجي خم واوصيكم تا ماغي لين دي دنك بامتثال الاوامر تي توب ديغال يا وجتنا بالنواهي اك مويتو تريا وبالتغافل اك اك دمو عن المحاسي والاسمية والتجرؤ اك دجرلي وملازمة ذوي الملاهي اك تقوق ورم طيا وآمركم تمولين دي دغل بالعمل تي جفي بالمعلوم تي لا نخم محل ادب اندك تيغين فان هذه الثلاثه نك يلي يت وسائل العربي نوي جمتكاي باجو اجو كان ابو مسلو شيطان دا بسم الله الرحمن الرحيم تالدي لي daa bàyyi ko ci kii nga xam ne day jaamu yàlla di liggéeykat yonantu bi yàlla mu jëmale lii nag ci ay bokkam yu góor ak ay bokkam yu jigéen ay bokkam ak ay bokkam yu jigéen ci diine ak ci cosaan ñoom ñëpp ci la jëmale lii lim jëkki nag nee na mooy mi ngi leen di nuyu ñoom ñëpp gannaaw nuyu bi nag mu ne maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla mu màgg mi yàlla mi nga xam ne moo gën a tedd képp ku tedd ndax ku dul moom yàlla ak teddam ak teraangaam mu nga bàyyi ko ci teddu yàlla ak teraangal yàlla ne kon digal naa leen ngeen ragal yàlla mu màgg mu tedd moomu maa ngi leen digalit ngeen xañtu li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam andi muy sunnaam mooy maa ngi leen dénk ngeen taxaw tem ci xam li yonante bi sallallahu alayhi wa sallam andi te topp ko bu teg ci maa ngi leen dénk it jàng ak jàngale te yàlla rek rek tax da ngeen farlu ci jàng ak jàngale te yàlla tax mu teg ngi leen dénk ngeen farlu ci topp ndigal ak moytu tere lépp loo xam ne xeetu mooy la mbaa luy nuru ak ñeme yàlla mbaa luy nuru fo ak ña koy def yooyu yëpp na ngeen leen dumooyu wan leen gannaaw bu leen leen gees sax bu leen geesu lépp luy xeetu mooy mbaa luy xeetu ak ñeme yàlla ak lépp luy xeetu mu ne maa ngi leen dénk it ngeen di jéem a jëfe na ngeen xam te ànd ak teggiin ndax xamu kese te jëfewoo du am njariñ xam jëfe itam bu anut ak teggiin it du am njariñ yépp lay taxa jariñu tey tax am pajuk aajo mooy boole yett xam ak jëfe ak sàmm teggiin والسلام جام يالا عليكم يالا دولي نيك ورحمه الله غيرمان يالا تعالى وبركاته اك بركين ما عملتم لي فك جيفك يين بوصيتي سما دنكان بي هذه بله التي بيغا خامني لا تنتهي بو مات دو جيخ خيوره ايوم ورحماته اك يرمانيم خيورها ورحماتها مغنى يلوك بوسيتي هذه وعينك خيوره ورحماته مونك فيه ثم علموا الطب بين خمني بأني جنك من متى أطلقني سعي من يلي الله يالله تبارك وتعالى بجاه المصطفى درجة كنتان عليه يندولينك جموم بآله أنك جنم وصحبي أي صحابه salamahu teralam ak jàmmam atakum kon dikal len shakhsi sama jëmm wala vri ak sama baat wa maana ak sama mana. insha allah dem sopp ne yalla tabarak wa taala wa ma dalika te lolu bi hasin xasiisin mi aj jafe allah ci yalla inta mune nak nag ngi ñaan yalla mu saxal len ak barke li fek nga xamni yow yéen ngi sama denkaani bi nga xamne lim ëmb ci ay yu ak yermane amut fu muy yam té nak na leen wóor ne yalla rek moma baye gut ci ma dellu ci waye buma yalla yàlla ne ma dellul ci baax bi bi ma daldi ci fi sasa ngeen gis sama jëm gis sama lepp te mu ne lool nak yow mu na yalla السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المريد يوم مريد به الصادق بأجدقل إبراهيم أما بعد فقد شرعت تنبلنا فيما جلغ خمني وحدت دليوناكو لكم يلين من التواليف أي تاليف التي يغ خمني تطيب دانا نتيل نفوسكم سيني بكان jami'an boole seen insha allahu taala wasalaam wa amartu te digal naa xaamilil xatti way yore mbind mi bi rujuuxi ci dellu si ileeka jëm ci yow muntadiriina mbir mi ngay néggandiku jami'an boole seen ñoom ñëpp wa amal wasiyat ndaal dénkaane ba ëllëti ba nga xam ne fii ay diihim nekk na seeni loxo فما كتبتها بنمك إلا لتعلموا دارنجين خمني دارنجين جين خمرك بأني تنك من شرعت تعملنا وبأني أكنك من أشفيكم نال سافرة إن شاء الله تعالى من أمراض الباطن تي جانغوري باطن وأمراض الظاهر أك جانغوري ظاهر وأما الكتب نال التي يغحمني كنت نكونا آمر دي دي دي bi majjiha ci seenu dikk ma ci ñu andi leen ilal mansili ba ca kër ga al mubaaraki ga diguñ barkeel fatrukuha na ngeen leen bàyyi xindakum fay yéen al aana léegi wasalaam sëñ bi dane maam Ceerno yow murid bu dëggal bi maa ngi lay nuyu gannaaw nuyu ma ma leen digoon ci ay xeeti taalifi yu leen di defal muy taalif yoo xam ne day saral seeni xol taalif yooyee tàmbali naa ko fii mu nekk ne ko nag ñoo ñu nga xam ne ñoo yore bind mi maa leen digal ñu dellu fi yow toog néggandiku dénkaane bi ñu yore itam ci seen loxo man maa ko bind te dara taxul ma bind ko lu muy bëgg ngeen xam ne tàmbali naa taalif yooyu nga xam ne maa leen ko digoon ak it ngeen xam ne naa leen tàggaleeg lépp luy jàngoro yi ak lépp luy jàngoro yi baatin saafara leen ba ngeen wér pelag pelag tàggoog jàngoro yi zahir ak baatin ci kàttanu yàlla mu ne ko nag téer yi nga xam ne maa ne woon dañ ko indi ca kër ga dañ ko bàyyi foofu jërul andi nañ ko bàyyi foofu wasalaam bismillahi irrahmani irrahim assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kayfa alxaalu naka la mbir ma wama waraakum ak lan moo nekk ci seeni gannaaw wama ak lan mooy la nga xam ne tara a rot na maanaam xew na min axbaari ci ay xibaar tayaqanu na ngeen wóolu bi annaa ci naka nun walillahi te ñal na yàlla alhamdu cant ga wa shukur ak ngërëm la xalaa xayri xayrin noo ngi nekk ci ngën ji yiw wa ala aafiyatin ak gën jaa kawee jàmm wa bi anna ak ci naka nun talabana sàkku nanu minallahi ci yàlla tabaraka wa taala maa nit loo xam ne تطيب دان تي به تي موم نفوسنا سني بكن وتقر تي شد به تي موم اعيننا سني بت عاجلن تي ليغي ليغي واجلن اك تي الك وبان اك لم ننسى فاتئون ولا ننسى تدو فاته ان شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنبدا بسم الله الرحمن الرحيم tacc nuyu maam Thierno ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu teg ci nag laaj ne ko maa ngi laaj nu ngeen def ak lu xew gannaaw néew beeg laaj gi li xew na leen wóor ne noo ngi ci jàmm ja féete kaw ci xeeti jàmm yi nekk ci yiw woo féete kaw ci xeeti yiw yi mooy daal xam leen ne yàlla mi ngi may baaxe ma nekk ci lépp luy yiw ak lépp luy jàmm mu ne ba tey na leen wóor ne maa ngi sàkku ci yàlla saa boroom mu may la nga xam ne maa ngi yéen ca la sunuy bakkan di teeyee sunuy xolit sedde ca kon maa ngi sàkku ci yàlla yalla boole nu may mag yeen day ak ëllëg lépp luy tax suñuy bakkan tey ak lépp luy tax suñuy xol sedd na leen wóor ni daal mosumaa fàtte te duma fàtte mukk insha allahu tabaraka wa alhamdu xeeti cant yépp lillaahi ajee la ñeel yàlla annasi yàlla mi nga xam ne aw rasanaa donnal nanu haadal kitaaba bi la téere wa maxaate mu far an yatawajjaha mu jublu ilinaa jëm ci nun bi suu in ci dara lu ñaaw aw xitaabin wala yaraange wala yedd wasalaatu wasalaamu xalaa man yàlla na nekk ci nga xam ne xidmatuhu ak liggéeyalam qaadat wa mat na ilina jëm ci nun at taalima xamal ga sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi daylu xulumi ña di waroomi xam-xam amma baadu fal yaalam na xam man ki nga xam ne katabtu bind naa lahoo ñeel ko haadihi l xoroofa ili araf bi annahoo ci naka moom wuhiba mayeef na lahoo ñeel ko fii تلاوة القرآن شجان القرآن خير معروف جنج جك فليأخذها نجاب جانغ القرآن أخذن أجاب جديدا قوي أجيس من هذا اليوم إذا لك بيبس مرتجيا بالمومي أجيا كارن أنه نكموم يأتي هذا نكو بعد هذا الإذن تغناو لندقل ما لو خمني yàtt yi bu dana teeye bi ci moom nafsan ci bakkan wa yaqarru te muy sedd bi ci moom xaynan ci bët insha allahu taala wasalaam sëñ bi daa njëkk sant yàlla mi nga xam ne nee moo ko jox alquran ne ko maa la ko jox muy sa ndono mu ne sant na yàlla mi nga xam ne dox na digganteem ak lépp lu ñaaw ak lepp luy xéetu yaraange def ci julli yonante bi nga xam ne liggéey gi ma koy liggéeyal ci lama yalla xamalé la ko soob mu xamal mako yalla ko yalla dool tirang ak jamm mbokam yak ya, ya amon xam-xam yu am njariñ mu ne maam mu gannaaw loolu nag yow mi nga xam ne yow laa bind araf yi na la wóor ne yàlla defal na la njekk ak lu réere ci jàng alquran bis ne tey ji na nga jàppaat jàng alquran jàpp gu yees te yaakaar ne gannaaw bu ma la ndigal ne la jàppaatal alquran fonkaat ko ci ni ko daan jàngee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 abadan mukk amma baadu fa sa tadxuloona xalsat ngeen dugg xaajaleen ci lu gaaw a gaaw fi raaxati taalimi ci nooflaayub jàngale wa taallumi ak jàng insha allahu taala fajtahidoo farlu leen fi islaaxi mawaadihi tawaalifi ci defar barabi taalif ya yal na leen doole fay allahu yàlla taxaala xan am fusikum wal seeni bopp xayran yiw wa axnaakum te mu doyluloo leen bi ci moom yàlla taxaala maxa tawaalif ànd ak taalif ya alman wiyaat ya duñ yéene alman wiyaati an xëyriha walis yurul ñoom min jamihil mu allafaati ci mboolem taalif yi qablaha seenu njëkk wa jaala te mu def lakum ñeel leen fiha ci taalif yooyu barakatul jamihi barke yépp yépp barke yépp yépp hu moom al qaribu mooy aji jege ja al mujibu te aji wuyu ak ñaan al alimu te aji xam al khabiru te aji dañ kumpa as sami te aji dégg salam gannaaw bi suñ bindee bismillahi rahmaani rahim ñaan yàlla mu saxo bi ak jàmm ak barke yo xamne bi am fuñu yam yem boole ko ya, ya bu ne maam cerno gannaaw lolu bala yag rek da ngeen am noflaayu jang ak jangale tax talif ya leen digoon ne mi ngi ñew danaka agna te bu ngeen tambale defar barab yi ya nga xamne bu fu ngeen koy def mu ne ko nag maa ngi ñaan yàlla mu dolli leen a fay aw yiw te taalif yi bëgg a ñëw bu ñëwee ngeen doylu ca sëkk ba du ngeen geesooti taalif ya ko jiitu woon te yàlla defal leen ci taalif yu yees yi barkeb mboolem ya nga xam ne ñoo jiitu woon xëy na daa ñaan taalif yu yees yi ëmb barke yi nga xam ne ñoo nekkoon ci ya jiitu booleeg seen barke yi bopp ëmb barke yi taalif ya jiitu ba noppi nag boole kook seen barke yi bopp mbaa sàng ne taalif yi yees yi ëmb mboolem barke yi nga xam ne moo nekkoon ci mboolem taalif yëpp yëpp yëpp yëpp muy sëriñ bi muy yeneen yàlla nag moo xam lépp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 yéen ñaari taalibe yi assaadiqaani ee aji dëggal daarun kër jadiidatun guy aji yees fa jasaakuma yal na leen dolle fay allahu yàlla taxaala xayran aw yiw yafuuqu koo day kawe zannakuma seen njort fi duniyaa wal aaxira xani walisma سيد الأولين تدجي سنغوب ويدقية والآخرين أو المجيني سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك وهذا تلي هاد كل رلا هاد لا ينفقد كد فريكو بإذن الله جنمي يلا تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته leetar bi moom mi mbind mi bàyyi ko ci sëñ bi ci maam Thierno la jëmoon waaye daa mel ni da koo boole woon ak keneen ndax bi mu ne bismillahi rahim teg ci julli ci yonante bi dane gannaaw loolu jox naa ndigal dongo yi ñu tabaxal leen kër gu yees kenn ku ne ci yéen ñaari taaliba yu dëggu yi mel ne kon maam na mooy kenn ki ayyuhal muridaani saadiqaan nee na ko mook ki mu koy wax jox na ndigal dongo yi ñu sancal leen kër yu yees banaa tabax na daañu ko wax jublu ci sanc man naa am kër ya muy wax ñu defaral leen ko nekkut jëmmi tabax ay sañ ci yees rek mën na koo doon teg ci ne maa ngeen yàlla nag mu doon ma leen a fayal ñaar yiw woo xam ne day kawe seen njort yiw woo xam ne day kawe seen njort fii ci àdduna ak foofee ci àllaaxira fi dunya wal aaxirati la wax ci daraja yi sangub ñu njëkk ak ñu lam daane ne mooy lii nag kóllëre la goo xam ne du firi ko mukk mukk du fecc ko mukk yàlla wa salaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu amma fa sabran ak mu jamilan guy aj rafet jaxalaha yàlla na ko def allahu yàlla tabaraka wa من مقدمات خير مبوكتي ينو جيتال يو لكما نيلين دي نيار امامكما تي سين كام امامكما واما شان المسؤول دال بيروم ني ني لاج انهن وليس نوم ففعل دفل كما فعلت نغا دفيون في الماضي تي لوي وياتيك تيد نلا ديكل خطهم سين بند بما تي لاغا خامني هو موم الصواب موي جوبغا في ذلك تي لوله وياتي نك خطهم مو في نك خطهن نيكو في ان الكافرون الا في غرور لا دانيله ان الكافرون ديت وي ودينا الا في غرور دا ني نك تي غورو دا ملني ليتر بي موم سيدي سيدي تونتو مام تيرنو ابراهيم تامبليكو تي وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته دا نك na ngeen rek muñ gu rafet yalla leen ko yalla defal muy dawalu yu ci seen kanam ngeen fekk ko fa mu ne ko nag soxna yi ngay laaj li seen bir digal naa la nga def rek na nga defoon ci la wéy danaa bind sax wax la lay yoon wa fa nga ci war aw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 كان يالنا دولي نيك الله يالا تعالى كوينا له نيل كو ولي المسلمين اك نيل مبولم جليت ني واصحابه تم دولي كو تخيل وتولاه تم دولي كو فيتو تحيه اب وسلام اك نيو يشيههما ابن لين غونغي تبشير اك دغل وزيارة اك سيارة ونصيحة اك لابيره ورضوان اك غرم mawaddatun ak ciofel wa muwasalatun akuk jokkonte wa inaratun akuk leral ila jamihi ahibbaihi jëm ci mbolem soppeem ya wa akhillahi ak ay xaritam fillahi ci yalla lillahi ngir yalla wa ila jamihi ikhwatihi ak jëm ci mbolem ay bokkam fi diine ci diine wattini ak ban muy cosaan mujibuhuma aji waral yooyu yaar i'laamukum mooy seenu yëgal bi ànni ci naka man walillahi te ñeel na yàlla alhamdu cant ga wan wal minnatu ak xéewal ga xalaa xayrin maa ngi nekk ci aw yiw wa xaafiyatin ak jàmm wa salaamati diini ak muccug diine wal badani ak yaram wa bi ànni ak ci naka man راض اجغرم لا ان الله تعالى رضا غرم لو خمني لا شخط ديت مر بعده مي نك تي غناو وهن حبده اك وليس جامم با ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم هنكم توب ما لين ايها اخوان يون بوكي هو تي متال وخصوصا اك اك دغلل fa jasaaku yal na leen doolee fay allahu yàlla taxala xaani walis ma xayran yiw bi jaahi ci daraja yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam sëñ bi daa tàmbalee bismillahi rahmaani rahim teg ci sant yàlla alhamdulillahi rabbil alamin teg julli ci yonante bi daal ni gannaaw loolu nag man mii nga xam dama di jaamu yàlla te doy la yàlla sëkk tudd muhammad sa waajur tudd muhammad waajuram tudd habibullah te yàlla mu yàlla doole nekkal doole nekkal mboolem jullit ñi doole mag texeel doole ma taxawul samay mbir ne man mii maay jëmale ab nuyoo nuyoo boo xam ne koy gunge muy ak béglé akuk siyaare akuk ak ug gërëm ak cofeel ug jokkonte akuk leeral néew yow lay àndal jëm ci mboolem samay soppe di samay xarit te yàlla rek tax yàlla rek nu boole ñooñu laay njëkk nuyu teg ci nag mboolem ñi nga xam ne samay mbokk lañu muy ci diine muy ci yaar yëpp muy diine ak cosaan li waral nuyoo bi nag mooy bëgg leen xamal ne leen maa ngi doole sant yàlla ndax maa ngi ci jàmm ci biir ak bitti sama yaram jàmm rekk sama diine ji ma gën a ñor jàmm rekk bu ma leen jëkkee xamal ne leen maa ngi ci jàmm ci biir ak bitti dama ci teg xamal leen ne leen gërëm naa yàlla ngërëm loo xam ne mer ca topp mukk mukk gërëm yonante bi ngërëm loo xam ne mer ca topp mukk mukk tekki nag gërëm leen yéen sama mbokk yi amul xeej ak seen yéen ñëpp laa gërëm te maa ñaan yàlla mu dolli ma leen a fayal aw yiw ci daraja yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ثم إني طوب نك من أوصيكم نالين دينك ونفسي أكسما بوب بملازمة كتاب الله في تقوى تيرو يالب تعالى وسنة نبيه أكسما سنن تنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والعمل أجفك بما جلنغ خمنا كارا نكونا حاله جموم السلف دوالب السالح بأجيو فإن هذا الزمن نك جلي جمن خاصة النفسي jamono kenn ku nek bopam la allazi jamono ja nga xamni akhbarana khibaron nanu bi ci mom al ahadisu adisiya as sahihatu ajwir bila shakkin ci lu amul ben ci saka bila shakkin wal yajtahid na farlu al ulama way xamni fi xamali jëfe bima ci la nga xamni alimu xamnañ ko wa fi ta'lim man ak ci xamal ñi nga xamni jehilu jahiloo réer nañu wala yajtahid dana dolle farlu al jahiluna way reer ña fi su'ali ci laaj ga wa fi ta'allumi ak ci xamlu ga wa fi qira'ati ak ci jang ga halal xulama ci way xam ña fa innal haqqa nak deug ya'lu day kawe wal batilu tiaxaan bo jange wal batila melni ku baamu wa innal batila naka tiaxaan mom yan qafidu day suufe walan tajida da do fekk tabdilan genn soppi li sunnatillahi ñeel sunna si yàlla yoonu yàlla wa ubashiru te maa ngi bégle bi ànni ci naka man lam ahtaj aajowuma ila shay'in jëm ci dara xunaa fii mimmaa ci la nga xam ne yaxtaaju dana aajowoo alxaribu ab doxandeem alxaribu ilayhi jëm ci moom fa inna alxaniya naka yàlla mi aju doylu allasi mi nga xam ne lëxoo ñeel na ko almulku nguur ga wala ho te ñal nako alhamdu cant ga wayu yi te muy dundal wayu miitu te muy ray al qadira yàlla mi aji attan ala kulli shay'in ci lepp mbir agnaani doylu nama bi ci mom an kulli ma siwa walis lépp lu bokkut mom moom an qalbi dal naka sama xol bi يشتاق دنا صب دنا نم إلى لقائكم جم تتشيين لتطيب غيرنتي نفوس ناس بكن مهن بول سنو وما ذلك تدير لولي بحاسيش المي أجي جفي حال الله تيالا فإن الأمر نك غيرنا كله لبهم بيده نك نجلهم ولا حول ولا قوة amul xeetu pexe amul xeetu kàttan illa bihi ndara mi nekk ci mom katabtu hadha yawm al isnaini mustahalla shahr ramadan li arbaxin wa hashin khalat da ci tek min yunayir xaama xamsata wa salaasi wa alf min hijratin mahi sallallahu taala alayhi wa sallam والسلام عليكم kullikum wassalaamu jàmm yalla alaykum yalla nek ci yeen kullikum mboole seen wa rahmatullahi taala wa barakatuh sëriñ bi da ca tek ne ma ngi leen nak di dénk sa bop taqoo alquran ak sunna ak jéem roy ci ña fi won japp ca lañ ndax mu ne jamono tollu kat moy jamono ji hadis yi waxoon ne dañ ca ag moy jamono jo xamne ku nek bopum rek moy ku ne da wara taxaw ci awale bopum ci yoon su mënta yóbbaale keneen nit mu jema dem bok mu nekkon nak ñi nga xamne ño xam nañu farlu ci jëfé lañu xam xamal ña xamut ñi nga xam ne ñu xamut it nañu farlu ci laaj ak di dem ci borom xam-xam yi ñu leen di jàngal ndax dëgg moom faw ci kaw rekk lay jëm caaxaan it ci suuf rek lay jëm loolu la yàlla àtti dogal ko te la yàlla àtti dogal ko kenn mënu koo soppi mu ne nag maa ngi leen di bëggal bëgg ngeen xam ne la ab doxandeem daan aajowoo man yàlla def na loolee aajowoo wuma ko ndax yàlla mi nga xam ne moo wul dara te man lépp dama doylul ci boppam sëkk sëkk ba aajowuma kenn ku may moom aajowuma lenn waaye nag sama xol ci boppam moo leen nam rek bëgg ak yéen bu demoon ba gise daal lu bokk tase sama xol dana sedd seen xol sedd kon nag yal na yàlla def loolu ndax loolu yomb na ko lool lépp moom yàlla moo ko amee moo amee pexe moo amee kàttan kenn amul pexe kenn amul kàttan ku may moom mu ne lii ne maa ngi ko bind ci altine ci jëkk ci weeru kooru atum junni ak ak fukk juróom bu nak ci weeru tuba wa nee ma nga tollu won nak ñaar fuk ak ñent ci yunaayir moy janvier tuduna na koor wa ne bis ba ci jëkk di altine la bindoon li at ma moy li bi wax ci gàddaay gi mu ne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 lii mi ngi bàyyi ko jaamu yàlla bi xadimil mustafa mi liggéeykatu yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ahmad babni muhammad ibni alhabib alxani ki aju doyloo billahi ci yàlla taala an kulli rabbin walis bépp buur wa kulli tabibin ak bépp docteur ila axihi jëm ci mbokkam ma من عبد الله من بايكو جامو يالا وي الى اخيه جيم تي مبوكم اللي ما خا خني لم يخالف مستجيوك موم في شخره تي داوامغا ولا في كبره تي جاغينو تي ماغامغا ابراهيم ابن والدي ابراهيم دومي سما واجر محمد سلام ابن يرقيه بدلكو ييغي ومن ak képp xamne ma ho an nak mom min al muridina ci ay talibé wa tahiyatul akum nuyoo tusaffi ba day selal sadrahu dënn mu xolam wa yasiru te mu yombal amarahu mbiram amma ba'du fa xadd wasalat akhina ilina jëm ci nun al hadiyatu adiyaja fa ajabtu ko ma tontoo bi hurufi qawli ta'ala wa antir khutul annaasa nit ña rajiyan mbir moy aji yaakar minallahi tabaaraka wa ta'ala an takone bu nekke hadhihi al-abyat ila bayt min nurillahi di bok ci leeru yalla ga ta'ala allasi leer ga nga xamne la yatfa'u du fay abadan mukk li fi nek nak moy min nurillahi ta'ala allati la tatfa'u ba la tutfa'u abadan inna rabbi naka sama borom mu sami fu duhaay aju dégg ak ñaan la boo jàngee laa yatt fa'u sulaasi bi day bàyyi ko ci tafi a fay na yatt fa'u soo jàngee nag laa yutt fa'u def ko fay lay doon bàyyi ko ci at fa'a ñu tëgg ko jëme ko ci mafhool li nekk fi daal ci yax bi ni ñu ko fi bindee mooy min nuurillahi taala allati laa tutfa'u با لا تطفو ابدا في ظاهر نك دون من نور الله تعالى الذي لا يطفا با لا يطفو ابدا سنبدا بكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكي بسم الله الرحمن الرحيم دالينا لي دا بايكو تي جامو يالا جامو يالا بي لغي كتوك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 ay may yu bare bari usika na la denk dina ñu ci xam xam o bil a'mali ak ci jëf yi ya, ma hatta dubi and ak tegginu al kamal ci mat ga ne ko ma ngi lay denk yett xam gu am njariñ jëf ji yu ak ki teggin yett yi ko la denkane sa yu nekk